bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyai walmursalin nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dellu siwaat nañ beneen yoon <clears throat> mbokk yi nga xam ne ñoom lañ bokkal ëtt bi di leen nuyu nuyoob lislaam di wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di ñaan sunu borom tabaraka wa taala lépp luy jàmm ak yërmande yal na borom bi sëmbërtal ko sunu kaw jégal na sunuy bàkkaar euh, fulal na sunu yiw suturaal na sunuy ayib defal ñu ak sax ba keroog ñu dajak sunu borom am ngërëmam fi jannaati àddinin ca kër ak teraanga nga xam ne sunu borom am na ko tey mooy ñetteel bi yoon ñu dellu siwaat ko ci fàttali boobu nga xam ne ñoo ngi ko doon fàttali sunu bopp di ko fàttali sunu mbokk yi nga xam ne ñooy borom kër yi ndax am ngeen amul benn werante ci ni ndéggat yi nu def mu jëm ci di wan jullit bu jigéen nan la war a mën a sëyee ba am ngërëmal borom këram ndéggat yooya moom defe naa ni man mii sax mënuma kaa wàññi ndax yàpp naa ni bari na waaye nag fànn gii nga xam ne day joxañ nag ku góor gi moom muy kilifa gi a ah, bariwut luñ koy def li ko waral nag mooy wolof yi dañuy wax ni ñax mu wow kenn du ko suuxat ba am ca ndam màggat kenn du ko yafal ba am ca ndam waaye kilifa kenn du ko jéem a yar ba am ca ndam comme kilifa gi mooy góor gi kenn du ko jéem a yar jigéen ñi nañu bàyyi xel loolu góor gi duñ ko mën a yar waaye nag dañuy naxante rek di def ay jeu ba keroog ngay am la bëgg ñu jàpp ni kàddu yi day bépp góor goo xam ni roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yitteel na ko cig dundam ngir sàkku gum ciy sàkku tiyaaba bu ko déggee dana tax mu gën cee bàyyi xel waaye gën a am yërmande ci soxna yi euh, jamono yi paase yàggut dama tëdd ci lalu hôpital euh, foog naa maa ngi def perfusion ma dégg jenn jigéen juy dama xamut comme ci biir laa nekk dama xamut ndax day jaabante ci couloir bi dama xamut ndax da doon jëm ca wana wa yàllaa xam waaye mi ngi onk-onk yu metti ak di jooy jooy yu metti maa ngi dégg ki mu àndal di ko massa man xaw ma lu xew ndeke boobu jigéen ji dafa toll ci mattu ñu toog ab diir ma dégg jooy yu méttee méttee métti ba fi ma tëdd sama borom yàlla seede ne am naa cofeel ak ñeewante ak yërmande joo xam ni daanaka bu ma ca mënoon dara danaa jug dimbali ko bi yëf ya jàllee nees ab diir ma dégg ab liir buy jooy ci laa doog xam ni kon kooku da doon am doom fi ma tëdd noonu may xalaat ëmb coono ya ca nekk juróom-ñeenti weer ngay dar da moom am doom ni mu mettee magum jëmm ni xëccit di jooy ci yu mel noonu te ku ne xam ne ni doom bëgg na ko xéewal guy ñëw borom ba ko moom di jooy la muy wane mooy na muy ñëwee metti na ma toog di xalaat ni lii dey war naa sabab góor ñi gën a dolli yërmande yi ci biir kër yi ndax kat jàpp naa ni ku daj lu mel nii bu delluwaatee ca kër ga war na faa fekk jàmm war na faa fekk piix war na faa fekk kado bal sax nag ci laay wax ni jaadu woon na jigéen ju am doom fa mu tëdd balaa moo jug ñu yóbbul ko kado boo xam da nga koy ndokkeelee comme na ko mag ñi doon defee ndokk sa bakkan mag ñi dee xëy na amuñu woon yu bari waaye danañ dem wuti xollitu gerte fële jox la nga raxas baxal naan ndax dana wàcce meret mbaa ñu dem ca àll ba wut garab gu ñu tuddee garabu xoos ñu baxal jox la amaana nga naan ñee di jël goowe gu amut cuuraay lu ne ngir rek na soxna si wér ñee dem jëndi ndawal ndil la ila axirihi ngir yërmande ju ñuy am ci moom loolu nag tax na ma jàpp ni góor gu ne war nay xalaat loolu lu mitti la jàpp naa ni góor gu ko natt ci sa bopp da nga xam ni loolu dana tax ñu gën a soxlawaat yërmande yàlla xam na ni coow li li muy bari bari bari bari bari soxna si wut ci boroom këram lu ëpp yërmande ndax yërmande indi na lépp yërmande indi na koddaay yërmande indi na lekk yërmande indi na naan yërmande indi na yëg te jigéen yàlla da ko bindee ab sakk akub tiitër boo ko sagalee tuuti rek may ko tiitër tuuti rek daanaka nga am ca moom la nga bëgg waaye jàpp naa ni doole ku ko am ba pare yilif lay tax sa kilifteef mat mooy nga am yërmande ndax borom bi tabaraka wa taala ci boppam yilif ñëpp moom ñu doolem ji ni mu baree inna batsha rabbika la shadid kooku moom doole ji ak ni muy dumaamam dafa ëpp sax ay loxo waaye lu mu ca wax innahu ghafurun rahim ca jeneen aaya ku bari yërmande la ku mën a baalaate la ghafurun rahim afuwun ghafur yooyu yëpp day wane ne yàlla ku mën a baale la kon dafa bokk ci mandarga yi mat góor mandarga yi am kilifa mooy nga am yërmande ci ki nga xam ne moom la sunu borom dénk jàppee ko rak jàppee ko loo ko mën a jàppee ci xeet yi sa rak ju jigéen keneen nekk jëkkëram sa sa sa jarbaat keneen nekk nekk jëkkëram sa doom ju jigéen keneen nekk jëkkëram jàppal ni na ngay jëflante na nga bëgg ñu jëflantee ko ak yow noonu ngay bëgg ñu jëflanteel la ko su ko defee bu ñu seetloo borom bi tabaraka wa taala dafa wane yërmande jooju ci al alquran mbaa seetlu ngeen aayaat yu baree baree bari jigéen ci sax dañ koy moomale kër gi mbaa néeg bi ku ne xam ne ni jigéen bu sëy sëy fam sëy si góor ko moom waaye nag yàlla da koy moomale ca ca buntu fase gis ngeen ba sunu borom ni laa tuxrijuhunna min na ca suratu talaaq soxna yi bu leen leen génn seen kër yi wala seen néeg yi te mu ne néeg gi ko góor gee moom waaye ngir sagal ko ngir sutural ko rek mu jël néeg ba adressé ko ko mel ni moo ko moom laa tuxrijuhunna min buyutikin min na kon foofu dafa mel ni dañ koo moomale kër ga dafa mel ni dafa ko moomale néeg ba ba sunu borom di wax jigéen na gàtt gàttub tànt que dañuy waqarna fi na jigéen ñi toog leen seen biir kër yi seen biir néeg yi mu ne a nag toog leen seen biir néeg jëkkër yi wala seen biir kër yi waaye comme daa bëggub sac bëgg k ko bëri yërmande ñu jël néeg ba ko fabal boobu moom sa beneen bi ci des mooy borom bi tabaraka wa mi ngi wax ni wa raawadatu lati huwa fii baytiha ndawas buur sa ba muy cokkaas Yuusuf dañu fii baytiha ca biir këram ga te ku ne xam ne ni kër ga buur baa ko moom ah waskurna maa yutla fii buyutikunna tudd leen li nga xam ne moo jàng leen liy wàcc ci seen biir kër yéen waa kër soxna yonent bi saa sallam min fii buyutikunna te ku ne xam na ni yonent bi saa moom moom néeg ya gis nga kon yooyu yëpp ay yëf yëfaan la yoo xam da lay wan ni borom bi aay jum tudd rek day jël néeg bi moomale ko jigéen ji ndax lépp sag la lépp sutura la kon sagal ko suturaal ko moo tax borom xam dañuy wax ni boo seetloo ci benn barab rek wala lu ko nuru la sunu borom wax wax ja wax ko wax ju xaw a ñagas mel ni moomalewu ko kër ga mooy bu ndaw si defee giraawali toj toj goo xam ne jar nañu génne ko kër ga borom bi tabaraka wa taala mu ni soxna yi nga xamante ni wallaati yatina alfahishata min nisaikum ah fële mu ne fa am amsikuhunna fil buyuti xool foofu mu waxul ca seen kër ya wala fil buyuti ca kër ya maanaam foofu moom sutura saak sak saa ngi tàmbalee dañ ndax moo ko jëkk dindil boppam yii aaya mbokk jullit di jàpp naa ne ku ko xool gis borom bi tabaraka wa taala ni muy suturalee jigéen ak ni mu koy sagalee fasi sax bu amee mu ne bu mu génn ab néegam na nekk ci biir lépp nekk sutura la muy wane mooy góor ga ëpp yërmande góor ga gën a mën a suturaal soxnaam góor ga ko gën a mën a sagal góor ga ko gën a mën a jàppale kooku mooy góor gu mat ki kooku mooy góor gu baax ki xayrukum xayrukum fi ahli li ahli ki gën ci yéen mooy ki gën ci waa këram ki soxnaam ki doomam wa ana xayrukum li ahli maa gën ci sama waa kër kenn du leen teral ku dul ku tedd kenn du leen toroxal lu dul ku torox bal sax nag borom bi tabaraka wa taala def ci ay aaya ay sa saa salaam wax ay xadis yu bari yoo xam daf leen di défendre nga xam ne jigéen ñi demoon nañ ba yonent bee nekkoon seen laqatukaay ndax am nay jamono sax yonent bi yéeg ci kaw minbar bi nii ay jigéen kalaame nañ ma ni seeni jëkkër dañ leen di dóor waaye góor ñooñu nañ xam ni baaxuñu baaxuñu góor ñi baaxuñu maanaam di wane ni booba fekk na nag àggaguñ ci euh, wane ni jigéen ginnaaw bi nag ñi demal ba mu yàgg ci la yonent doo ko yoonal jigéen bu defee naka su ñu dóor ko waaye ànd ak dóoree ko nii dóoree ko woyofal ko bul dóor kanam gi bu mu diis bu mu ilaa mel ni daal kuy dóorub liir moo lay wan ni kon kooku ñu ngi koy sóor ñu ngi koy bàyyi xel li ma a wax moo ko jële di mooy jàpp naa yi day lii may wax nii du benn waay bu matal këram la ko war lépp dikk ci nit ñi naan leen def leen mel ni jàngalekat ak nanga déedéet waaye benn waaye la boo xam li mu yëkk rek lay wax te li muy dund rek lay wax nga xam ni moom mi koy wax ak ñi koy déglu ñëpp ñoo ci bokk rëy nag mooy koo xam da dégg loo xam ne lii mooy dëgg ba noppi waaye sag rëy du la may nga di ko jëfe waaye woyof te képp ku rëy nekk ci xolam ajana du fa tàbbi góor gu oyof gi góor gu baax gi mooy ki nga xam ni ni muy bëggee soxnaam dégg lu koy jëriñ ñëw mu exploité ko ci kër gi noonu la war di déggee luy jëriñ ñëw ba bërëm soxnaam jaaxle ah waaw diw lu tax mu teel a wàcc tey diw lu tax mu def nangam diw nangam nangam mu daal di koy wax ni ko man kat dama déglu tey ak ndéggat goo xam ni lan ca wax di wax dëgg yàlla bëgg naa ñu changer suñu dund bëgg naa ñu nangam bëgg naa ñu nangam keroog tàbbal nga ci xolu ndaw si mbégte moo xamante ni loo ca dolli rek di nga ko am ba faw te jigéen ñi xam nañ lii may wax góor ñi xam nañ ko boo leen sagalee suturaal leen yërëmal leen foo leen woo ñu fekk la fa li may jeexalee mooy ku yërëmtalu koo xam ni boo nee Tamba laay tuxu ji mu ne nga acca mu topp la boo nee Europe laa mu topp la boo nee Italie laa mu topp la buy taw ak buy seen nag bu yëpp dalaa war topp kooku jàpp nañu loo def ci moom ci yërmandi rek loola xeebu na nu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu dimbale ñu ba loolu bañ a nekk lu ñuy dégg rek waaye mu nekk lu ñuy mën a jëfe wala alimu a allahi taala wa sallallahu sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain